balaa ngay jall bu fekkee abonné wo nga abonné bés cloche de notification bi abonné bi nak c'est gratuit doo fay dara te dina tax tamit vidéo bu ñu duggal duñ ci teel jot. tayit it dafay yombal suñu liggéey te xam ngeen ni seen qualité yeen moy suñu mbégte ñu wa Sango Gouma TV. chers internautes Linguère Fatima vous remercier de votre compréhension. Suivez la chaîne Sangoguma TV. Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV. La scène qui vous ressemble. La chaîne qui vous ressemble. La scène qui vous ressemble. Et vous rassemble. Et vous rassemble. Et vous rassemble. suñu mbokk mii di baytaal mi ngi bëgg a ci kaso bi ñëw nañ fi ay yoon ngir ñaanal ko ñek ci bour saala ndeer waaye daf ñoo gantal ba yoon bi fi mujjé xamal na mané bis boo ko sàkkalatee njëggal dinaa la ak mom sen seen bop ak seen baat dama am nakar, mhm. ndax lima ma fukki buntu neexuma waye dina fayu guddik tay gi bo toro da fanaan wut dina repetel sama fas dellu ndayan suma ko fekke dina jël buum yew ko ci baatam fital jëm ci fukki buntu te su boobaa sande kep ku ci wax dina takale bopam ak batam ndax dégg nga ma xamal xamalatuma la dara neub nga ma sa bop reer nga ma meur bama jaxle lol nak demba bi nga demee ba léegi mom mo yor kër bi kalimata biige li nak mo yak penci mi yak askan wi déet may sa fatima way wuyu tas gaal ken du ko way ci tefes te sak delu ndayar anduma ci aba yàgg beug na nga sedani ñaari kuy sa buñu bokke mbalk ba seeni béy da day metti rek waye ku ne da nga mos. dëgg ndax kat nit man na rotal coonaam fa muy sonne te njariñam du ko fekk mukk lol nak day bëgg dal taala te kep ku dekk rendi jeegi hmm. sa paaka dina diib te do yap ndax deeng nga ma. so bëggee publicité gaawal gaaw nga ci si numéro bi 77 254 84 39.